yaa ayuha nabi ey yow yonent bi ittaqillaha ragalal sa boroom wala tuti'il kaafiriina wal munaafiqiin te bul topp yéeféer yi te bul topp naafiq yi inna allaha kaana aliman xakima yàlla day nekk na aji xam nekk na aji ku xereñe wattabi ma yuuxa ilayka min rabbik toppal li nga xam ne wax yu nañ ko jëme ci yow mu jóge ci sa boroom inna allaha kaana bima taamaluuna xabira yàlla day nekk na ci li ngeen di jëf di ko ci ñàkk kumpa wa tawakkal ala allah na nga doon koy wékku ci sa boroom di sukkandiku ci moom wa kafa billahi wakiila doy na yàlla rek muy ku ñuy wakkirloo maa jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi yàlla deful ñeel benn góor ñaari xol ci biir biiram ba wa maa jaala azwaajakum defulit seen soxna allaa'i tuzaahiruuna minhunna ummahaatikum soxna yooyu ngeen di gannaawal ay di ko yemele ak seen yaay yàlla defuleen nekk seen yaay wa maa jaala ad'iyaakum defulit ñi ngeen di woote woo doom addiyaakum di leen woote woo abnaakum yàlla def ko mu nekk seeni doom zalikum qawlukum bi afwahikum li lépp seeni wax la ci seeni gémmiñ wallahu yaqulu alxaq yàlla nag mooy wax dëgg wa huwa yahdi sabil ca mooy jubale ci aw yoon ca mooy yoonu njëbboo mi ngi noonu mbokk kon lii mooy suratul ahzab di saar boo xam mi ngi wàcc ci madina daanaka néew na bañ commencé tafsir ba léegi ñu dajeeg saaru madina yi sunu borom yàlla subhanahu wa taala def ko it muy saar boo xam ne dana nettali ay fitna yu tar yu amoon ci kër yonent bi amoon it ci biir jullit yi suñu borom yàlla subhanahu wa taala woote sunu yonent yàlla bi juróomi woote doonte ne fonk gi nga xam ne moom la ko fonk amul benn yoon bu mu ko woote alxuraan jaar ci turam amma mboolemi yonent tudd na leen nee na yaa nuux yaa ibrahim yaa muusa yaa isa te ñooñ ñooy ulul azmi yi ñoom ñëpp tudd na leen amma suñu yeen yonent yàlla muhammad yàlla mosu ko wax yaa muhammad heure bu koy wax mooy yaa ayuha nabi yaa ayuha rasul ila axiri xoolee saar bi nee na ko ci yaa ayuha nabiyu ittaqillah wax ko ci ne yaa ayuha nabi qul li azwajika in kuntunna turidna alxayata addunia wax ko ci ne yaa ayuha nabiyu inna ahlalna laka azwajak ila axiri daal di ko ci wax ya ayuha nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira ca mujjil ba mu ne ko yaa ayuha nabiyu qul li azwaajik wa banaatik wa nisaai lmuminin ila axiri muy juróomi yoon yu ko yàlla wax yaa ayuha nabi pour wañu ne ay ndigalam kam ci jiital mooy yeneen ci yàlla bi moo ko war a jëkk a jëfe gannaaw ba nag mu wax ñu ci biir saar bi ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana am ngeen royukaay bu rafet ci yeneen ci yàlla bi ndigal bu jëkk bi mu koy jëkk a wax mooy lan mooy yaa ayuha nabi ay yow mi yonent ay ay nabi mooy ko yàlla xamal nu jaam yi war a jaamoo yàlla te moo ci mujjoon sallallahu alayhi wa sallam xaatama nabiyin ci dañ ko jàng ci biir saal bi suñ borom ne ko ittaqillah ragalal yàlla mbokk negam yonent ci yàlla bi la ñuy wax ragalal yàlla ndax keneen dana ko jomb déedéet kenn jombul ñu ne ko ragalal yàlla malheureusement nag li ëpp li yàq suñ diine ji mooy suñu njiit yi kenn du leen wax njuum génn ca mbokk juum taxuta teewuta baax imaamu malik imaamu daarul hijra daana wax ne képp kenn ci ñun da nga juum ba mu des borom xabru bi muy sunu yeneen sallallahu alayhi wa sallam te yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam da daan juum mais lu tax mu malik ni du juum mooy moom fi mu juumee la yàlla ñëw na ko da ngaa juum ca loolu moom rek a ko amoon abubakar amu ko omar amu ko kon keneen ku dul moom ak njuumteem dina wéy mu ngi noonu moo tax suñu borom ne wax ak yonent bi fii ittaqillah ragalal yàlla dañ ne ko mel na Omar ibn Khattab su ma saan def dara ba sahaaba yi kenn ne ko ah yaa Omar ittaqillah dafay jël bopp bi tekki suuf ne ko ragal naa yàlla lan laa def mu ngi noonu ragalal yàlla ca bul topp yéeféer yi bul topp naafiq yi ci seen bëgg-bëgg mbokk lii bi ko yàlla di wax wax naa leen sànq ne nee na jullit ñi mooy seen reyukaay ay kon yow jullit ragalal yàlla bul topp yéeféer sunu borom mu ni in tutiu lazina kafaru yarudduukum ala aqaabikum su ngeen toppee yéeféer yi dañ leen génne seen diine te mbokk malheureusement yéeféer yooyu tey ñooy jàngal sunu njaboot bi tey jii njabootu jullit gi ñu ci néew a am chance toog fu ñu leen di waxee yàlla nee na yonent yàlla nee na la ëpp ci lii alimenté seen xol yi mooy li ñuy jóge ci école boobu nga xam ne école laïque la kenn du foog yàlla nee na kenn du foog yonent yàlla nee na ak télévision yi nga xam ne ña nga xam ne ñoo koy alimenté ak seen i film ak seen i information ak seen i théâtre quatre-vingt-dix-neuf pour cent ba amul yàlla nee na amul yonent yàlla nee na loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax bul topp yéeféer yi bul topp naafiq yi naafiq mooy ki nga xam ne heure boo jógee bëgg a def lu baax ñu découragé la critiqué la raayta almunafiqina yasudduna anka sududa mi ngi noonu di la jën ci lu bon loolu na doon góor la wala jigéen borom bi nag ne xam leen ne yàlla mooy aji xam aji xereñe mbokk yàlla lim lu digal loolu rek a baax ci yow keneen ku loo ko bëgg a bañ loo kooku sa noonu la yàlla mooy alxakim te mooy ki xam gannaaw ba nag mu ne bul topp naafiq yi kon luy pexe mu ne ko toppal li ma wax yu génne ci yow te mbokk mi ngi noonu yonent bi alei salaam sunu borom nee na waxul ci bànneexu bakkanam lim wax yépp man yàlla mi seen borom maa ko ko wax ci gis ngeen yéeféer yu jëkkee rawatina waa Samuud dañ doon wax naan abasharan waahidan minna nattabi'uhu kii nit la comme ñun muy wax ñu naan dañuy dañuy topp ay waxam te intellectuel yu bëri it loolu lañ jàpp moo di ne ni liñ naan ay yeneen ci diine loolu gisuñ la benn nit la donc ñun démocratie mooy nañ xoolaat mbooloo mi yépp taxaw ñu xool li ñu tëral waaye mbokk benn yeneen ci indil waxam li mu wax yépp ci yàlla la jóge tax suñu borom ne ko toppal li ñu wax yu mu jóge ci sa borom te it loolu yow jullit loolu nga war a topp ngalla waaye moytul yi ñu sos gannaaw ba ak li ñu rafetlu gannaaw ba wala ay gént gannaaw ba li ngay topp ne doon alquran ak sunna bi jóge ci sa borom borom boobu nag ne li ngeen di def amu ci benn kumpa ba ko suñu borom yàlla dara réeru ko ci li nga xam ne jaam yi ñi ngi koy def loolu it moo tax moom rek ñi lañ mën a ragal amma bu dee sa baay mën nga koo nëbbatu def la ngay def sa directeur de service mën nga koo nëbbatu def li ngay def mi ngi noonu waaye yàlla moom kenn mënu koo nëbbatu mi ngi noonu yàlla mu kenn mënu ko nëbbatu léegi nag heure boo jógee bëgg a topp diine yàlla ji coono dana ñëw de mooy fitna dana bari suñ borom na ko loolu lépp du problème tawakkal ala allah wékkul ci yàlla te it xam ne yàlla doy na wa kafa billahi wakila te malheureusement li ëpp ci jullit ñi ndeysaan xam nañ yàlla mën na ñu ngi dellu ci yàlla sax waaye pour ñoom yàlla doyut ah bu yàlla doyut tax naan yàlla ak nangam bi ma yaakaar mi ngi noonu yàlla jiw mi nga xam ne nii bay xetti lu ko woo keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala suñ borom mu ne kafa billah yàlla doy na wakkirlu ab jaamam loolu tax julit lépp lu mu jëm danaan tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah sooy génn sa kër waxal loolu bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah yaa ngi jëm ci commerce ba yaa ngi jëm ci sëy ba yaa ngi jëm ci lu mën a doon yàlla doy na ci ngay wakkirloo ko tax yanquba alayhi salaam ba muy wax doomam ja mu ne leen jaar leen nii def leen nii waaye nag mu ne xam leen ne na ngeen wékku ci yàlla man ci moom laa wékku wa alayhi fal yatawakkalil mutawakkiluun ku wékku ci yàlla rek nga war a wékku ndax kafa billahi wakila léegi nag suñu borom ñëw di régler ay problème bokk na ci benn problème bu njëkk mooy lenn ci arab yi daanañ gis kenn ku rëy xam-xam ñu ne kii daa am ñaari xol diw ñaari xol la am suñu borom ne déedéet amul benn jaam bu am ñaari xol ñépp benn xol rek lañu am loolu it mbokk comme benn xol nga am mbokk xol boobu day mën a féete fii wala mu féete faa am déet waaye mënuta boole ñaar doo gis mukk laa tajidu qawman yuminuuna billahi wal yawmil axir yuwaaduuna man aada allah wa rasulahu nga gis koo xam ne dafay bëgg yàlla ak yonent bi ba pare bëgg noonu yàlla loolu mënuta nekk xol mbokk benn lay bëgg amma nag arab yi dañ naan maa sumiya al qalbu qalban illa min taqallubihi man ngaa bëgg lii tey ëllëg nga bañ ko man ngaa bañ lee tey ëllëg nga bëgg ko mais mënuloo ko boole su ko defee yow julit yaay xool sa xol bi soo bëggee alquran am ci cas ka moytul ma musique ya ak théâtre ya sa xol bii bëgg ci yàlla bëgg ci yeneen yàlla na ko fees moytul jël ay nit bëgg leen nu raw na nga waroon a bëggee yàlla loolu lépp da ngay gis ne ay njuumte la yàlla defulul kenn ñaari xol ci biir dënnam beneen bi bokkoon na loo xam ne arab yi dañ ko daan def te xatta sunu société yi di ko def soo masaan mere sa jabar ba koy fase da nga naan ko yemele naa la ak sama yaay yemele naa la ak sama yaay ngi noonu sabab ba dana ñëw ca suratul mujadala léegi nag loolu nekk musiba bu rëy soo demee foofu suñu borom mu ne ñooñu ko wax wax nañ lu bon lu ñaaw munkaran min al qawli wa zuura muy benn ñaareel bi itamit suñu borom yàlla indi nag ay atte yoo xam ne ku wax loolu loolu nga war a def te mooy suñu borom yàlla subhanahu wa taala bi mu ne defu leen ci seen yaay képp ko wax sa soxna yemal naa la sama yaay du ngeen mën a sëyati lu dul da ngay goreel jaam mu lay jafe lool ci Sénégal soo ko amul fokk nga woor ñaari weer yu tegaloo soo munta woor ca ngay dooga nag dem dooga leel juróom benn fukki miskin doonte ne ni mbokk julit la ëpp ci doomu aadama yi koy wax daan dellu ci wax jooju kafaara boobu ma lay wax mooy soo bëggee jëlaat soxna bi mais en général ña koy wax ñëpp yàlla dana leen nattu ñu bëgg jëlaat soxna bi loolu man daanaka gis naa ci ay cas yu bari ñenn ñi ci ñoom ñëw nañ ci man di ma laaj waaye lay musiba mooy def nañ ko ba pare wëlbati ko jëlaat soxna bi gars yi loolu defuñu lu ñaawa yaa taxaw ne ko su ma la namee ànd ak yow samay ndey demal naa ak sama ndey ba pare nga jëlaat ko muy benn ñaareel bi mooy ñi ma ci jot a waxal ñëpp wax leen ne da ngeen war a war ñaari weer yu tegaloo dañoo lay seeni lay ba génn ci bu ko defee ma dinaa la wax lu leer nañ dama ne lii dal la yàlla wax yàlla nee na da ngaa war a war ñaari weer yu tegaloo soo ko manee amoo droit di def leneen soo demee ba mënoo ko nag ca yàgg yàlla mu ñu leen nëbbonte su boobaa jëlal juróom benn fukki miskin nga leen leen waaye al muhim mbokk jullit du wax wax ci sa jabar da nga koy fase fase ko rek su ko defee it borom xam-xam yi dañ naan ki ne soxnaam yaag sama yaaya yem wala yaag sama sœur a yem wala yaag sama doom bu jigéen a yem ñoom ñépp ñoo yem bala ngaa mën a àndaat ak moom fokk nga woor ñaari weer yooyu ñu wax kon loolu suñu borom mu ni seeni soxna mu ñu leen fexe ba ñu nekk seeni yaay waaye ñetteelu problème bi suñu borom bëggoon régler wala it moo di ne ne arab yi dañ daan def ku ci am benn doom doomi jàmbur wala benn jaam wala benn duxandéem nga daal di koy jël daal di koy doomoo ñépp considéré le sa doom mook sa doom yi nga jur amul différence day donnu day def lépp ba yàlla dogal sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam kii di Zayd ibn al-Harisa mu am ñu agressé yaayam bi ñuy tukki këf ko indi ko Makka bañ koy indee ku ñu wax ibnu Hizaam moo ko jënd may ko Khadija muy soxna yonente bi alayhi salaam Khadija mayaat ko sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam muy nekk ci kër yonente bi papa ji moom mi ngi bëgg a daf fu lu mu ngi fay wër di wër di wër di wër ba yegg si makka daal na waaw ndax xamu leen fi xale bu mel nii mel nii ñu ne ko ah am na xale bu Muhammad yor day kooku yaakaar nañ moom la bi mu ñëwee fekk suñu yonent yàlla yónnee ko ko mu ñëw na ko man day damay wër sama doom bu mel nii mel nii yonent bi alayhi salaam woo Zayd mu ñëw fekk moom mi ngi ànd ak nijaayu Zayd mu ne ko ndax xam nga ñi mu ne ko waaw kii mooy sama papa kii sama nijaay la yeneen tibaari sam ne leen amul problème waaw jël leen ko ngeen dem ngeen ñibbi bi loolu amee Zayd de bañ ne déedéet man du ma dem ñëw papa ji wax wax mu ne ko man du ma dem ci kii laay toog kii moom a gën a la papa ji moom comme wëroon na ba boo delloo ci histoire dañ naan way yim doon way daana wax naan ay su ma daje woon ku ne ma fekk woon naa fa ñuy suul Zayd rek sama xol sedd mooy su ma waroon na dee na rek sama xol sedd comme loolu moom ñëw na gis ne kii mooy ki ñu gën a fonk ci màkk ndax boobu yàlla yónnee ko ko màkk gépp moom lañ fa gënoon a respecté mi ngi ci loxo yu wóor xelam dal ca la doog a dem nibbi avant muy nibbi nag yonente bi alayhi salaam jël jàpp ci loxo Zayd dem ci magi Kaaba gi ñu ne ne leen bis nekk tey seede leen ne Zayd bi def naa ko sama doom te booba moom amul doom bu góor xam ngeen doomam yu góor yépp kenn amu ci un an Ibrahima moo ci am un an et demi ca Madina la juddoo kon loolu tax ñu naan ko doomi Muhammad Zayd doomi Muhammad sunu borom yàlla nag bi mu bëggee dindi loolu mu jëlee ko ci mu jël misaal yi jaarale ko ci yonente bi alayhi salaam loolu tax yonente bi ni ñi gënoon a tar ay natt ci kaw suuf mooy yonente yàlla yi gannaaw ba ñu sës ci ñoom yàlla xëy xëy xëy xëy xëy daa di ne ak doomoo googu amul zayd bi takk zeynab bintu jaash nga xam ne yonente bi alayhi salaam moo ko dox may ko ko zayd fase ko yonente bi alayhi salaam borom bi ne ko jël ko jël ko nga def ko sa soxna loolee nekkoon natt bu rëy boo xamee ne nii dana ñëw ci suñu biir saar bi lañ ci ittiloon rek suñu borom mu ne kon doomoo amul ci lislaam loolu it mbokk loolu nga xam ko islam gërëm na xale bu tumuranke nga fat ko yonente bi alayhi salaam nee na ana wa kaafilul yatim ka haatayni maag kii fat jirim nii la ñuy mel yowmal qiyaama ci biir aljanna na doon xale bu réer la nga for ko wala lu mën a doon am maa nag li tubaab yi di def tubaab bu ko neexee daa di jël doomi boppam déshérité ko daa di ne kii bu ma donnati signé su ko neexee jël doomi sàmm ma sàmba ak ma demba ne mooy sama doom fils adoptif mboole mi àq bu dee kooku moo koy moom islam moom nay déedéet loolu amul ci biir l'islam borom boobu nag kon loolu la wax ci diggante Zayd boobu ak suñu yeneen doonte ne ni mi ngi continuer di wax teggin yi war a jëflanteeg ñoom mi ngi noonu وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدوا
أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا
kon suñu borom mu ne uduuhum li abaihim ñooñu woowe leen leen ca seen bàyya ay ci seen turu bàyya huwa aqsatu inda allah loolu moo gën a maandu ca yàlla fa in lam taalamu abaahum su dee xamu leen seeni baay fa ixwaanukum fi diin daan nekk seeni doomi ndey ci diine ji wa mawalikum ak seeni péete ay ña nga xam ne jaam yu ngeen goreel la ñu nekk seeni péete wa laysa alaykum junaax nekkul ci yéen it benn ngant fi ma axtatum bihi ci loo xam ne da ngeen caa juum walakin ma taammadat qulubukum waaye lañ leen di toppee mooy loo xam ne tay na ko seen xol ya wa kaana allahu gafuran rahima sa borom yàlla nekk kuy nekk na kuy jéggalaate kuy yërëmaate annabiyu awla bil muminina min anfusihim yenent yàlla day moo gën a yey ci nit ñi ci seen bakkan yi moo gën a yey ci julit ñi ci seen bakkan yi wa azwajuhu ummahatuhum ay soxnaam day seeni yaay lañu wa ulul arham amma ñi nga xam ne ñoo bokk ak mbokkoo ah mi ngi noonu baaduhum lenn la ca ñoom day awlaa bi baadin ñoo gën a yey ca ña ca des ña bokkoowul fii kitaabillah ji téere bi yàlla min al muminina na doon ñooñu dañoo bokk ci julit ña wal muhajirina ak ña gàddaay ñépp illa an tafalu ila awliyaikum maarufa xanaa lu dul ngeen def jëm ca seen aji féete ya njekk bu ngeen di jëmeli ci ñoom kaana zalika fi lkitaabi mastuura lii day nekkoon na ci téereb yàlla ba di laxwil mahfuuz loo xam ne lu ñu bindoon la fa ba pare mi ngi noonu mbokk suñu borom mu ne ñooñu nga xam ne dañoo ñëw ci biir société l'islam nañu leen di woowe seen turu baay yoo xam ngeen ne bu dee ne yeneen làkk yi africain yu bëri ñoom dañu am ay sant mais arab moom lu ci bëri da naan abdullah ibnu omar abdurahman ibnu awf ila axiri mooy comme ni nga dégg muhammad ibnu abdullah kon woowee leen leen seen bàyyi looloo gën a maandu ci yàlla te it na am mbokk julit kii bu dee masamba juru ko ñu ne doomam la automatiquement kon dañ naan dootul mën a séeg doomi boppam te automatiquement it mën na am mu séeg ña nga xam ne ñoo bokk benn bàyyi loolee da ngay gis ne donc nekkul loo xam ne nii lu maandu la borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne su dee ne xamu leen seen bàyyi na doon xale yi la yoo xam ne da ngeen leen for rek xamu leen kuy seen bàyyi su boobaa it nañ leen di wax mawla aji péete nañ nekk seen seen frère ci diine wala ñu leen tuddee mawla nangam comme ni ngay dégg Salim mawla abi Huzayfa mooy kay péete woo diw waaye du ñu wax kay doomu diw loolu kon lañu gis ne mooy la suñu borom yàlla wax foofu ci liit la ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan ñuy wax ne képp ku feeñoo ci beneen baay bu dul sa baay ku mel noonu day da ngay gis ne da nga ànd ak mbëggalum yàlla yowmal qiyaama te loolu léeg-léeg mu am ci ay nit rek la nga dégg ñuy annoncé naan diw de mi ngi ñëw ne mooy nangam mbàkke waaye waxul dëgg boo demee joxaane la sant wala saar mi ngi noonu kee dem na moom mooy nangam ay dara te fekk ni du loolu te mooy dem ci ab xeet gis ne am nañ ku ñu fonk nga wone woone moo lu jur te fekk juru la mi ngi noonu su ko defee loolu ci bakkaar yi gën a garaaw la bokk ndax suñu borom moo tànn ku ko neex génn ko ci famille ba ko neex te loolu loolu boo ko defee mooy kon yàlla dafa juum abadan na nga sant santal noonu loolu mooy la nga xam ne mooy tax sa mbokk di gën a mën a sax ñi bokk ak yow xam la say doom xam seeni mbokk ila axiri borom boobu subhanahu wa taala mu ne kon dara nekkul nag ci li ngeen juum ndax xam ngeen saar yi ma nga wàcc ca Madina donc ca atum juróomeel ba fekk na diir bi yonent bi nekk Makka yépp lu ëpp bi ñu jël Zayd ba ar yu ay mën na sax ëpp na fanweeri at ak nangam léegi ñu naan Zayd ibnu Muhammad Zayd ibnu Muhammad aay yi mënta wàcc rek gaa yi bàyyi ko bu ko defee nag kon fokk njuumte am léeg-léeg nga gis sahaaba bu ne Zayd ibnu Muhammad tiit rëccu suñu borom nag ne li ngeen juum moom baal naa leen ko li ma leen toppe kay li ngeen tey wax ko ama li ngeen juum loolu moom baal naa leen ko te loolu da ngay gis ne xatta yéefiri arab yi ku masaan mer da nga naan wal laat wal uzza maa ngi giñ ci laat ak uzza bi islam ñëwee tere leen loolu yonente bi alayhi salaam da leen doon wax ne ki juum ba wax loolu na wax laa ilaha illa allah loolu it kon bari na ay sunu mag ñoo xam ne ni fu mu mere ne barka cheikh nangam wala barka sëriñ nangam wala barka borom nangam ku mel noonu mën nañ dem ba leeral ko ne ko loolu baaxul yonente bi alayhi salaam ne ne kii waat waat ci keneen ku dul yàlla kooku mi ngi bokkaale mu gëm ko waaye mën na mer rek wala mu tiit rek wala mu sàggan wax wax jooju bu ko defee ku mel noonu da ngay jéggulu yàlla ne laa ilaha illa allah da ngay jéggulu yàlla daal di wax laa ilaha illa allah comme na ko yeneen ci bari som doon wax képp ko wax naan wallaat wal uzza na wax laa ilaha illa allah ay kon yàlla du leen jàppe li ngeen juum ca it loolu règle générale la ci lépp comme aadama bu juumee amu ca bàkkaar loolu moom borom xam-xam yi dëppoo nañ ci masalan lu mel ne koor gi tey waa ji dafa fàtte mu daa ji wàcc mi rek gis ñu teg añ bi mu añ ba rek gi doog a xam ne damaa woor moo la ñu borom xam-xam dëppoo nañ ñu amul benn bakkaar fa ñu wuutee kay mooy ndax da koy fayam du ko fay ya ngi noonu la gën a bëri ay tegtal mooy jarul muy fay donte nag am na ñu ne lu mel ne mazhab Maalik ak ñeneen ñoom dañ ne amul bakkaar waaye nag bis bi da koy fay waaye almuhim lañ ci yitteel mooy lépp loo xam ne da ngaa juum def ko loolee moom da ngay gis ne amoo ca benn bakkaar allahuma lu dul yenn ci yoo xam ne yàlla da caa teg ay loi masalan yàlla ngir bëgg a sàmm bakkanu doomu aadama yi tey ki juum rey nit luy pexeem dafa juum rey nit mais loolu ku ne xam ne ne ni ña nga reyal ñoom léeg-léeg duñ mën a comprendre da ngaa juum ak juumuloo ba tax suñu borom yàlla ne ku mel noonu war nañ koo dàmp téeméeri giléem yoo xam ne da ko war a jox joxe wala mu joxe lu jege ñaari junni xar loo xam ne boo ko doon estimer mbokk dana bari lool ci ay millions pour lan ngir ni nit ñi def attention ba ba ñu juum di rey am déet tey waa ji jël otoom di jëm Saint-Louis di daw cent cinquante kilomètres à l'heure mën na am rey nit ci teyu ko am déet mais nag moo def sabab bi tax mu rey ci teyul am déet loolu kon moo tax islam tëral ay loi yoo xam ne danaan même boo tayul ci rey nit moom dañ la dàmp lii ngiree ñëpp def attention waaye bu dul looloo moom bépp bakkaar boo xam ne yow jubluwoo ko sa xol xalaatu ko njuumte rek moo la ci yóbbu moom jëf boobu moom yàlla du la ko toppe mi ngi noonu moo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni yàlla mooy kiy jéggalaate ca mooy kiy yërëmaate gafura rahima mu wëlbati ko it ñëw ci ne xam leen ne yonent yàlla day moo gën a yey ci jullit ñi ci seeni bakkan ngalla waay jullit xamal ne bëgg-bëgg boo mën a am bëgg-bëgg bu ma sàmba am kooku sa ndey la sa baay la sa sëriñ la àdduna yépp buñ daje woon ci kaw suuf am lu ñu tëral yonent yàlla tëral la yonent yàlla tëral nga war a jëfee am déet ndax yonent bi mooy priorité ci mbooleem bindaafanu yàlla yi sa bépp bëgg-bëgg boo bëgg-bëgg nga xool ñu ne la ah lii kat sunna da koo tere da ngaa war a bàyyi sa bëgg-bëgg topp sunna yonent bi alayhi salaam ne kenn ci yéen du gëm xatta takuna hawaahu tabaan li ma jitu bi lu dul bànnee xam ñépp day topp la nga xam ne moom laa indi mi ngi noonu moo la war a gënal sa ndey ak sa baay moo la war a gënal xatta sa bakkan loolu la jurit war a gëm awlaa bil muminina min anfusihim loolu it sunu borom yàlla ne ay soxnaam day seeni yaay lañu ay seeni yaay lañu ci worma mooy respect bi nga war a jox sa yaayu bopp respect boobu nga war a jox soxna yi yeneen ci yàlla bi ñu ngi ñaan ñun ñëpp yal nañu yàlla jéggal wallahi am na musiba bu ñëw Sénégal maa ngi ci tiit yàlla ñun ñu ko yàlla toppee parce que mbokk soxna yeneen bi mu ñu war a gënal suñu yaayu bopp yàlla nattoon nañu benn rajo chiite fii ci géejawaay li ñuy yekk suñu yaay Aïcha di ko yekk Aboubacar ak Omar ak Ousmane vraiment jiggi ne dayoo problème bi mooy ndax bu doon suñu yaay lañ ko yekk ndax duñu réagir te ñooñu ñooñu war a gënal suñu yaay ci wàllu worma loolu mi ngi noonu su ko defee kon ñu koy moytuloo njaboot gi te it di ci ñaan yàlla yàlla na ko yàlla fay donte ne ñu ngi ci réew moo xam ne dañ ne réewum démocratie la nit ki am ay lu ko neex wax lu ko neex def loolu mu kenn mënu ci dara fii la nit taxaw ne yàlla mooy yónni fii la nit taxaw ne maag yàlla yi doon ataaya kenn amul dara wax ci dara su ko defee boo demoon naan dañuy tëj seen rajo bi dañ naan la ah non da ngaa gëm ñu gëm mënu ci dara kon li ci des rek mooy ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla yàlla fegal suñu réew ci ay boobu boo ko soxna yeneen ki bi suñu yaay lañu rawatina yaay Aïcha ñi nga xamee ni nii yàlla wàcce ay aaya yu ñuy jàng ba ila yumi diin di ko laabal di ŋàññ ñi dal ci moom boo demee yooyu yeneen interprétation lañ koy jox di wax ci moom loo xam ne ëpp naa nettali ci ay xale ñu koy dégg sax ala kulli xaal kon mi ngi noonu dañ leen war a warmaal suñuy yaay lañu ci yaayu worma borom boobu nag subhanahu wa taala dàq na sànq ñii doomoo doomi jàmburu dàq na ñi ne seen soxna yi seen yaay lañu mu am leneen lu muy dàqaat mooy bu jëkk luñ daan def waa muhajirin yi bi ñu ñëwee ñu ci bëri ay pauvre lañu woon comme naka yàlla waxe ci alquran uxriju min diyaarihim wa amwalihim ñëw madina amuñu dara waa ansaar ñoo leen teeru dalal leen da ngay gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam diw day ñëw mu ne diw yóbbu ko ñu nekk ay frère daanañ dem ba taxaw daa di waatante ne ko bis ne ki tey def naa la ku ma bokkal ndey ak baay ngi noonu def naa la ku ma bokkal ndey ak baay effectivement ba waa ji bu ma saan dee bàyyi alal na frère yi donne noonu la muhajirinu boobu di donne nañ ko daan dimbali bu muy dimbali ay frère am noonu lañ daan dimbalente loolee nag suñu borom yàlla wàcce ay aay ne déedéet ña nga xam ne ñooy mbokkoo ñoom ñoo yey ci wàllu ndono képp ku dee loo xaritoog xaritoog nit du tax ñu boole ko ci ñuy doon ña nga bokkal ndono ña nga bokkal biir ñooñu ñooy la nga xam ne ñoo lay doon loolu suñu borom arrêté ko foofu allahuma nag yàlla ubbi beneen bunt ne lu dul ngeen defal leen njëkk njëkk ba mën na nekk bi ngay dund nga jël ci sa alal may ko sa xarit la nga jël sa alal may ko am nga droit yi bind sa testament daa ji ne sama xarit diw dey bis bu ma dee nañ ko jox ci sama alal temps loole mën na ëpp sax la nga xam ne sa doom dana ko donn parce que tant que paasewul sa ceeru alal loolee dañ koy wéyal waaye bu dee ne daal yow waxoo defoo dara ba nga dee say mbokk lay donn xarit moom du la donn loolu kon la suñu borom yàlla dàqaat foofu gannaaw ba mu dàqee yee mu jëkk a dàq borom boobu nag subhanahu wa taala ne lii mu leen wax lépp dogal la yu yàlla dogaloon démb doonte ne ne mbokk alquran day seetaan doomu aadama yi ci seeni aada di leen tàggat nànk-nànk di rocci par benn rocci par benn rocci par benn ba baa ñaar fukk ak ñett yi fi yonent bi alayhi salaam def nag diina ji daal di mat sëkk li waroon a araam lépp araam na li waroon a dagan yi ñu jaanamoo yàlla yépp diina tëral ko loolu moo tax kon jeex na yonent bi matal na ko yàlla matal na ko yonent bi jottali na ko ba ilaa yawmi diin kenn du waxati ne lii lu ñuy araamal la ba ilaa yawmi diin xanaa lu dul loo xam ne daa méngóog la araamoon ci passé ba ilaa yawmi diin it kenn du wax ne lii jaamu yàlla ko bees la ndax suñu borom mu ne matal naa lépp mbokk lii di saar boo xam ne wareef na ci ñun ñëpp ñu fexe suñu njaboot dégg ko muy suratul ahzab ak suratul nuur yàlla na yàlla subhanahu wa taala lépp lu ñu ci gëm loo ñu gëm ko lum ñu ci def loo ñu def ko lom ñu ci tere ñu ba ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain sama bàyyi dafa am xéwal bu ko yàlla defal léegi ndax man man naa at bu nekk rek bu waxtu wa jotee ma santal ko xéwal googu mbokk loolu mbir la yoo xam ne dafa dab lislaam gaa yi yonenti yàlla muhammad yàlla defal ko woon xéwal ca Badara ndax amoon na anniversaire bu ñu daan sant xéewal ak badar ñu ngi noonu yàlla defal leen xéewal ci li ñuy jàng su ghazatul ahzaba ah kay ndax yàlla ndax yonent bi amoon na bis bu mu ko daan sant ala kulli xaal mbokk loolu amul ci lislaam islaam xamuñu loolu te boo xoolee sunu mag ñi fi jiitu woon it daawuñu ko def sunu mag ñi fi jiitu woon it daawuñu ko def gannaaw ba kay la ko seeni doom ji def waaye nañu xam ne daal lislaam sa bàyyi bu jiitu la nga la koy jëriñ mooy nga ñaanal ko yàlla subhanahu wa taala waaye du dajale bis boo koy santal da nga koy ñaanal yàlla ñaan googu nag bu ci xaar at at ba at waay loolu tubaab yee koy def ñoo am journée des mères ak journée des pères mais ñun tous les jours journée suñuy waajur la jullit foo jullee war ngaa ñaanal say waajur su ko defee kon daal mi ngi noonu waajur del sax di ko ñaanal boo mënee géñal ko sarax waaye bu ko wutal ay anniversaire islam xamul loolu naam waaw naam waaw bismillah waaw dañuy wax ci acte laïcité bi dañuy en France naturelle en France
ala kulli xaal enfant naturel la lu ci bëri mooy ñoom li ñuy wax ne kii kat moom doomam la donte ni ab sëy jiituwul woon ñoom boo demee ci seen loi ñoog doom bi nga takk yaayam ñoo yem amma bu dee lislaam nag yemuñu rawatina ci wàllu alal naam lu la neex mën nga koo may ci sa alal mais ba dara desul lu dul donn moom du donn mi ngi noonu ñay donn nag buñ ko mayee ñoo xam waaye moom moom kenn du ko boole ci donn gi mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam loolu suñu borom dani labisu fi kahfihim salaasi miatin sinin ñetti téeméeri at lañ fa def wasdaadu tis'a ñu dollee ko juróom-ñeent loole ñetti téeméeri at ya boo koy wàññi ci atu jant bi la amma boo koy wàññi ci atu weer bi day dollee ko juróom-ñeenti at ndax téeméeru atu jant bu nekk day teg ñetti ati weer da xam ngeen fanweeri at ak ñett ci jant bi fanweeri at ak ñeent lay doon ci weer wi looloo tax lañ fa def ci diiru bu doon ci sole sol jant bi nga koy natt ñetti siècle la mais boo koy natt ci temps weer bi li muy def day nekk ñetti siècle teg juróom-ñeenti at kon sinin boobu yëpp tis a boobu sinin lay doon non mbokk bi waaw àllarbay kare loolu moom xanaa ñu laaj ko sëriñ Njaay am dem na waaw wala ma kooku moom mag ñi lañ koy laaj mais l'islam xamu ko àllarbay kare l'islam xamu ko ñoom dañ naan moom ci la ñu alagoon xaw ma Huud nangam nangam sabate Njaay waaye loolu l'islam xamul li àllarbay kare ci aada yi fi suñu maam indi la waaw ñu mujj ci mbokk bi bëgg a laajaat rek waaw waa waaw mooy àllarba bi ñu weeru digg gàmm waaye pour ah is dama ne loolu aada la bu fi lislaam tëral waaw moom lay wax nag nee ne li ñuy tuddee digg gàmm mooy bu gàmm gi waaj a ñëw weer bi ko jiitu boobu lañ ne àllarba ca jëkk la ñuy wax àllarbay kare mais loolu sunu maam yi ñoo ko créé waaye doo dem ci benn téere bu lislaam fekk fa àllarbay kare mi ngi noonu waaw.
fekk la ñuy woor bés bu yàlla muccal Firawna te Moussa ci Firawna moom ñun santam dafa moom dafay woor après c'est-à-dire chaque at dañuy répété di ko woor pour sant pour sant yàlla ci Firawna sunu yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam daf ne Moussa alayhi salaam day yàlla ko musal ci Firawna bis boobu Moussa woor ko def ko cantug yàlla Moussa ba mu koy woor di sant yàlla yàlla ko saxaloon ci loolu yonent yàlla yàlla ko saxalum ci loolu waaye gannaaw ba yàlla defal na yonent yàlla victoire yu gën a màgg lam defal Moussa ndax Moussa xeexul ñu mu àndaloon xeexuñu te yonent yàlla mosul màggal anniversaire boobu su ko defee diine mooy li ñu yonent bi alayhi salatu wasalaam bàyyee la nga xamee ne nii mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam kay ñi ngi nii korité ngi nii bu ñëwee ñu màggal ko tabaski ngi nii bu ñëwee ñu màggal ko moo taxoon mu ne la nga xamee ne moom ngeen di def ci ay feet yépp bàyyi leen ko yàlla indil na leen lii loolu kon muy wane ne yonent bi moo saxal ñu màggal bisu ashura ngiree ne yonent yàlla ba Muusa ba mu koy màggal ngir sant yàlla yàlla da ko caa saxal waaye gannaaw loolu gisuñu ci diini lislaam benn jëf boo xam ne xéewal la gu yàlla may yonent bi ca bari na ca badr ca xaybar ca fatxu makka ca feneen ca feneen benn xéewal boo xam ne nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam at mu ñëwaat na mu koy màggal wala bi fi yonent bi jógee anniversaire u badr anniversaire u xaybar anniversaire u makka fatxu makka ñëw sahaaba yi ne nañ màggal xiiwal gi ñu yàlla subhanahu wa taala defal loolee day gis ah nekkul lu am donte ne ne doomu aadama bi bëgg a indi ay mbiram lay moom dañ ne du ñàkk day dëng wala mu jub yàlla na yàlla jubal suñuy lay def ko muy dëppoog alquran ak sunna wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain waaw suñu doyen bi ne nañu fàttali ne xale yi amagul 18 ans ak mag ñi passé 60 ans bokkuñu ci may deret gi mi ngi noonu